macha allah xamaas mi ñu xool ba xam xam na dara wala xamul dara xamaas xam nga xamaas seetal loolu seetal boobu tur xamaas. loolu benn imam du taxaw di tuddee kii xamaas xamaas nuyul waa Sénégal nuyul waa Afrique. Eh, asalaamaaleykum xamaas bi tax toog benn place day jay jay ni. taamu la rek ah quand même. ok salaamaaleykum salaamaaleykum waa plateau bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu tam initiative bi ak invité bi. Eh, ak invité di nuyu tamit ñu ma fekk si plateau bi du nuyu waa Diamaguène waa tuuba du nuyu sama yaay ak sama papa du nuyu maman Ndeye Ngom ak mam ak papa Mama di nuyu Fatou Wali ak waa Gaale bépp di nuyu maman du nuyu Fama aussi tamit ak waa senegal booy ak Petit maa ngi nuyu ñëpp ñu bàyyi xel ko waa surtout ak diaspora bi tamit Mor Alaaji maa ngi koy nuyu di nuyu tamit képp ñu bàyyi xel Xamaas la woon. d'accord Xamaas yow rappeur nga wala mbalaxmaan. xamas musicien nag. musicien nag mooy lan. mu tënk lépp da ngay guitare wala da ngay bongo wala looy def. damay damay rap. damay jouer piano damay mbalax damay def lépp. da ngay rap da piano da mbalax. waaw d'accord ah. ok xamas. Mhm. Euh, balaa dara di xew dañuy ànd ak waa Rési ñu xool. ndax xamaas mi xam na dara wala xamul dara sa carrière mën na fi jaaree arrêté. waaw yàlla parce que fii dañ lay càmbar. Mhm. su fekkente ni gis nañ. Mhm. sa carrière bii kat day gaañ réew mi. Mhm. ñu ne la bàyyi su fekkee ni gis nañ ni nag li ngay musique euh, baax na. na nga xam ni fii nag man maa am compétence su càmbar kii président daayira la. kee da doon formation animation. moo bàyyi. parce que ka ko waroon doon jàngal moo dem retraité avant muy def ay atam yu mu war a jàng. xanaas mi dafa yàpp sax ki muy woye ndaw si muy woye la yàpp déggoo mu ne ko jigéen ñi bari na waaye gisuma ku la tane ku la tane ku la maanaam dafa mel ni xamaas maanaam dafa mel ni moom moom xamaas dese na sax bëgg ndaw si. sa sa sa bi te woy bi wayu mbëggeel la parce que lu tax nga ne ko. parce que da nga waroon wax ne jigéen ñi bari nañ waaye gisuma ku la gën waaw lan moo tax tey sa laaj ba ñëw fi fi ngay fi ngay képp fi may képp bëri na ci koo takkagul nga ne leen xam nga eh, ah, mais loolu la ko yàkkamti may képp may yuux ah, léegi lan moo tax mu lay képp képp googu moo la war te man la eh, waruñu laa képp saay saay nga booy <laughs> attends ma je. juddoo goo ñu lay. kepp keppat yow takkagoo jabar bëgg di keppante. yëpp li ñu rëy bu am solo la ñëw. waaw xoolal kii xoolal kii ñëwal ci keppaate bi. waaw kii tey mu dee. may mayee déglu ma xam na kepp bi ñëwal aywa. mais ndey na expliqué non aywa ok exactement déglu ko booy bi juddoo ko di keppante. aywa ñëw ba ba ma répondre soo acca ñëw la ma kepp mooy yuuxam yaa ko xam. de illa ki mooy wayu ma kepp mooy yuux si ay parole mu dama kepp foofu mooy yuux may ñu. ah lu foofu. Eh. gis nga gis nga gis nga gis euh, nga nit ah. booy xamaas xel bu ko bu ko yóbbu fu mu àggul quoi. léegi léegi léegi. ak ma yër li nga yor ma yër li nga yor taxul nga yër li nga yooyu yëpp leen ko fekk bàyyi ma jigéen may ñu jàmm ci ko tax bàyyi ji waaye bàyyi jàmbur mm. ma gone nga mm-hmm. bi non yaa ko foofu de foofu dama ne mokk yi yéen ñaar dama ne bu ma xam de mën na kepp si ay looy dox di yuuxu looy yuuxu non man ma waa yuuxu de eh, may ma ngaa looy yuuxu looy dox di yuuxu. non mën na ma mën xool ma wax boo xam ne mën na ma wax du mën na ma. ne ko waxin la dégg la laaj bu la kenn fat yow de ki ngay woy bàyyam war na laa yóot dóor la arrêt. Ah. moo woyu ma pour man may woy pour ñëpp. koy way pour ñëpp kan. Eh, ñan ñoo fi keppante ba gannaaw damay woy gis nga ay eh, booy bu ñu fonta gannaaw. waaw booy léegi man. maa ngi woon ci ban point point kepp boobu sax ma jigéen a ko dégg indiwaale ko ci. mais man dama ñëw ci wàllu mbëggeel. Mhm. mbëggeel gi nga wax ba dama jàpp ni Eh, tuutil nga foofu mbëggeel gi parce que le fait que nga ne ko mhm. eh, gisuma ku la tane mhm. maanaam est-ce que du ku la gën nga waroon a utiliser tane mhm. tane moom kii la mais maanaam dafa mel ni def fee sës rek d'accord en général bu ñuy woowee mbëggeel hmm. du contexte boobu ay tane nangam hmm. contexte baalu la contexte baalu baalu waaw dañoo ah, ah, dama tooñ di baalu ah texte bi da nga baalu da nga tooñ di baalu waaw di baalu ah loolu mooy idée générale bi idée générale bi mais pas ay. da ngaa tooñ di baalu. waaw waaye léegi tax nga naa ko gisuma ko la tane tooñaat nga. gisuma ko ko tane waaw ndax parce que moom moom. ah da wër gisoo ko ko tane moo tax nga ñëw di baalu. c'est grave c'est kon kii da laa a ba sax moom. parce que wër moo xool fu dëgg am. da war a na ko wër naa gisuma ku la gën hmm. bàyyante am fa yoon. ah fu dëgg am bàyyante am fa yoon. mais est-ce que est-ce que est-ce que yaakaaroo ni foofu hmm. euh, gën nga waroon a utiliser ka tane. la moo gën. no moo gën. waaw moo waroon a ñëw. pour yow nga yaakaar na moo moo gën foofu quoi. non mais loolu mooy place am hmm? foofu gën moo fa nekkoon place mais nit bu ne nit bu ne. xam nga tane tane moom mooy maanaam li ngay jàpp jàpp jàppandi rek quoi tane nekkul euh, ci sensu olof. mais mais moo ko benn affaire. waaw waaw voilà tane voilà waaw c'est vrai li mu wax dëgg la. tane fu mu am feebar jógu fa mais moo olof boo koy déglu tamit faal yaaram. da ngay réer quoi. ah waaw. ah comme indil ma beneen. réeral ma yaa ngi di keppante ba noppi bopp bopp du ko yenu ah. da bët. bët waaw waaw waxal du yenu. lu mu àttanu mais jum na. xam na lu bopp àttan mais jum na foofu. waaw ndax parce que yow. kirit kirit. waaw kirit moo gën a oyof tey oto. du nga ne. kirit oto kirit kirit. moo gën a tuuti. moo gën a comprendre de kon comprendre li mu la de. da bët du yenu waaye xam na lu bopp àttan. mais olof juum na foofu. ah nu mu fa juumee. waaw léegi exemple laa booy nag yaay critiquer olof. waa léegi exemple. waaw kay waaw mais c'est fii dafa daanu moom moom moo. non non daanu bët du yéen waaye xam na lu bopp attan. waaw waaw waaw contexte boobu nga ko gisee quoi. waaw léegi dañu ñëwaat dañu ñëwaat si contexte bi boo ne waxtaan ka affaire baalu ba genre demee noonu. waaw da ngaa dawaat. non daw ma du ma daw nga daw sujet daw kay. ma tarkindaa la du ma daw. tarki. waaw ko tarkindaa. sitta la. ñii ay booy jàmm léegi. Ah. léegi continuer ci sens bi nga wax noonu. ok ban ah. fan la waat ci tat ci tane beeg loolu quoi mbëggeel. waaw ndax parce que da ngay nga feebar sax ñu ne est tane nga. waaw est tane nga mooy wérugoo. mooy li kii wax ne fu tane nekk feebar jógu fa. waaw en daal nu ko a euh, nangu ni xam nga nangu ni juum nga bu beneen yoonee bu ko defee parce que lii critique bi. ànd naa ak moom ah. booy bi naka bit bi ak rim bi waaw rim bi xaw ma. waaw saa. ñun naa am aussi bu bu wax bu fa tegee gën. riz bi faussé wala dara non non non defal na tane bi boo seetee sax neexut. Ah, ah. Ah, <laughs> ah non ñun eh, contexte bi ñun bind bi ci rim bi rim bi lañ lañ euh, focaliser wu quoi hmm. mais am na foo xam ne euh, gën amu fa ci hmm. bind bi tane moo mooy place moo tax ñu teg ko foofu quoi. non tane bi sax man ànd naa ci. ànd nga ci. Hmm. bu nekk si. xamal lu tax ma xamal lu tax ma ànd ci respect bi ngay am aux autres pays. boo nee diw moo leen gën xam ne ku ku ne maa la gën rek nga mer. sa gis-gis waaw loolu tax baatu tane mooy gën a oyof ci diggante hmm. nit ak nit. nit gën parce que ku ne yaa ma maa la gën nga mer. merci beaucoup euh, te. <laughs> booy hmm. euh, euh, bi nga jógee ci li nga xam ne mooy mbiru tane yooyu kii morceau bi mooy sa première morceau. non non j'espère que bii mooy sama troisième xam nga quatrième morceau waaw. yow kon def nga quatre morceaux. non def naa de huit neuf dix. waaw lu tax nit ñi xamuñu la. parce que dafa jotagul rek. yu génn non vidéo la ah, waaw am na huit morceaux def ko vidéo. waaw am na sept sept vidéo. Hmm. waaw kañ nga commencé. en en 2017 2017 2018. 2017 2018. waaw ba léegi yaa ngi def ay vidéo. maa ngi def ay vidéo waaw. yi xanaa gars yi duñ ko teg wala moom demee noonu. bien sûr mais fii Sénégal la. Hmm. Branlo moo moo moo. Eh, hmm. moo la fi. xam naa foofu fii Branlo moo la fi. fii ñu naa fa plus quatre fois quatre vidéos yu ma génn ñu naa fii lépp mais wala fa jël waaw léegi bi la jox moo dama tudd turam non mais wax ko ñu xam ko kan nga ko jox non non dama def loolu ah non non non indi nga fii ñëw naa fii bras long mooy dox loolu da mais est-ce que yow kay ma non c'est que booy dañuy def benn système dañ naan non est-ce que nekkul ni dañ ma dañ ma boole comme euh, dama demoon euh, RDV hmm. waaw euh, DJ bul tudd tamit yaa ngi tuddaat encore foofu ay tur te loolu ngay bañ waaw DJ boo boole fii ne ma béykat contact ne ko ne maa la booleeg moom hmm. léegi ma dem fa jox ko mun ma envoyé ma son bi par WhatsApp n'est-ce pas ma envoyé ko ba tey amul retour quoi mooy loolu ba tey amul retour est-ce que nekkul ni daf ko déglu neexut non peut-être tamit mu ndax loolu mu si balaamee doomu aadama ndax ñun sax ñun artiste ah, mais lu tax pareen saay doo delloo mbir mi ci sa bopp daal ne est que man li ma def nii hmm. euh, neex na est-ce que nekkul ni dafa neexut waa ji moo tax mu kale ko quoi parce que am na son yoo xam ni ku ko joxee hmm. euh, béti gars yi dañuy daw pour teg ko. exactement mhm. boo leen ko joxul sax ñooy dem ñooy daw pour wër ko sax pour teg ko. xam nga xam nga bu fekkee benn artiste boo xam ne célèbre bu ñëpp xam nañ ko. allez c'est pas la peine mu yóbbu saxoon na. non léegi xam nga dana dama lay jox benn système yaay dem génn saxoon ñëw teg ko mais am na ñoo xam ne tamit bon du ma si balaame doomu aadama. quoi mais mais léegi xam nga lan laa mhm. xam nga fi mu toll nii jamono ji ñu nekk mhm. nii. dama lay jox benn idée. boo xamante ni noonu ngay def pour say son. Euh, wasaaroo. Mhm. di ko jox télé yeeg rajo yi sax. Mhm. Euh, pour mu dox problème la. Mhm. TikTok waaw dafay am dafa am ay booy yoo xam ne ñooy influencer yenn booy yi il faut. TikTok am xam loolu. c'est que nga defee ne son yi yëpp ñuy challenge nga defee ne challenge challenge la am na challenge yoo xamante ni bi am na ñoo xam ne bu ñu génnee seen son dañ koy yóbbu ci toppandoo leen léegi gars xam nga loolu waaw mais nag boo yooyu di challenge il faut nga wut loo leen jox ñu challenge lépp connaissance la am na ñoo xam ne moom soxlawul a xam sax mais xaalis nga leen di jox ñu challenge la waaw euh, xam ma ko mais léegi dem naa ba xam système bi léegi si TikTok boobu sax am naa fi doole léegi am nga fa doole am naa fi doole léegi am na jox ñooma si Hamas waaw Hamas hmm. euh, bu fekkee bu fekkee cadre boobu gis na man sanon sanon man maa koy fiil ba pare waaw xam nga nit loolu lépp loo def da nga koy fil ba pare man maa ko fil bu ma jàppee neex na sama rek comme ndax neex si doomu aadama quoi lépp lépp loo def filim la quoi hmm? musique yéeg yéeg la musique musique ne yow yaa mm-hmm. ba mm-hmm. ma nekk de passage maa ngi leen nuyu waa global maa ngi nuyu Jaw Jóob di maa ngi nuyu Bouba ak waaw waaw foofu def science d'écoute mm-hmm. comme sound boo mujjee génn devant sawoon ba pare dem ñibbi ñu jox ma permis bi ñu ne ma woo am ne dama prise à sawoon bi kon sawoon bi sawoon bu baaxul du génn ñoom bu ñu joxee seen accord mais léegi léegi booy bind ak di def say son yooyu mm-hmm. da nga ciy sóoraale TikTok bi comme li la Sandiogou wax parce que am na nooy nooy nooy nooy rabee wala nooy wayee TikTok bi gaarwaalee fa duñ ko duñ ko jël euh, par exemple soow ay décembre bi gis nga dalinga bi gis nga a ngi koy challenge ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay miyaa gis ñeneen ak ñeneen mais booy wayeti wala ngay bind mm. sóoraaleel ñuy challenge d'accord exactement moo tax euh, bu compliqué duñ ko challenge exactement euh, musique am na foo xam bu tollee foofu defal loxo njaru nopp njël nopp loo xam ne day neex a déglu day neex a parole day neex a day neex a jàpp léegi foofu lañ toll quoi sama dernier son yi sax noonu la demee noonu au lieu que bind bi koy léger nga utiliser ay mots yoo xam ne simple ak yoo xam ne mën nañ ko comprendre gis nga gis nga gis nga gaxar waale mhm. moo dox ci TikTok gis nga waajooju nee na li gën ci ndab li laay ñëw cof cof jëf ndab li waaw gis nga bi mu ko waxee ba léegi ju nekk jël na ko ne moom moo gën ci ndab li waaw maanaam li gën ci ndab li laay jël cof gis nga ni ñu koy tappalee di loolu hmm. ak beneen booy boobu am na beneen booy boobu moo gën a aay ci gaarwaay moo gën a ay ci morceau yooyu mooy beneen jibaa xaw ma gis nga ko lu mu way booy jël ko hmm. faram faram même ustaas yi gaarwaal sax dañoo dox mooy ustaas TFM boobu day gaarwaal moo jiite ustaasu gaarwaal kan laay wax xam naa ki ngay wax. waaw li ah, tax nga xam ko moo tax nga. <laughs> man de xam naa ki ngay wax man de xam naa li tax li tax ma ne waaw mais dama ne kii jaarwaale rek mu ne xam naa ko. non non loolu mooy wane a wax dëgg la. donc yow li léegi. il faut nga wut euh, ay temu gaaruwaale. di di di ruube. musique moom musique bi foofu la toll. ñun boo defut loolu. doo am son yu ñu la gaaw a xamee. est-ce que yaa ngi créé ci son gaawaale yi. de un euh, avant boobu avant avant boobu. Hmm. man visé wu ma buzz ma carrière laay visé de un. waaw ah. n'est-ce ah. Sénégal un mois la. Hmm. maximum deux mois un an mu jeex. Hmm. mais carrière moo nekk loo xam day continuer. comme suñu papa Youssou Ndour. waaw ah. ba gars yi indi ay gaawaale moom carrière lay def. waaw mais am na fenn foo xam ne boo xam ne comme. genre yoo xam ne mais léegi day gàmm ay gaar waale. gaar la waaw mais mais am na am na foo xam ne comme par exemple. parce que béy day ànd ak morom béyam loolu gaar waale <laughs> la. loolu avant avant boobu. waaw ku yàgg naa gaar ak yéen yugur yugur yagar yagar gaar bu a wax. waaw <laughs> yugur yugur yagar yagar la am na ku mu doon wax. koo xam ni mënoon naa la ne la kii lay wax. donc pour te dire que ni gaaruwaale moom dafa yàgg ci. waaw waaw ramatu da koy naawandoo gaaruwaale. ay saa bàyyi bayu jàmbur bi. Ah, ci bitti ndomi jaay ramatu da ñaaw la. càppaacul yi gaaruwaale la. loolu gaaruwaale xale bi yaay la. mais mais mais kanam. dafa xëy nekk ca. mais grand man nag daa am lu ma ko bëggoon laaj. am na euh, bi ngay lii euh, du yow kese yaa àndoon. Hmm. ku àndaloon. Euh, man ak Poupée Posita sama doom. lan la jigéen. Poupée Posita moo ngi toog. moo toog nii Poupée Posita. léegi dañu koy présenté. Ah, Poupée nan. Posita. Posita waaw. day rab moom aussi. ku daa ko woo ci Sénégal mooy kii. Hmm. Ah, mais yow mais yow mais yow dama bëgg xam man ku fi ñëw loolu laay njëkk a seetlu. Mhm. du loo monté teg présenté ñu ko mais yow nga wax nga nga rab ni ñu gis xool lan mooy sa dara comme ba ñëwal ba jox. xama si kaw féegi si suuf it leen seen ràpp ma noq leen uuf waxoo fi ah bëgg ñu uum paa bi jeexu te maa ko xuuf ma fëll fëll ngeen telli telli nga xelli xelli ngeen weli weli rab wolof bu dee woon a karafu taal bu tàkk na matt yaa ngi cees ah, waaw bii ah, dox na. defal naa. non non non yi lay wër. yii Cheikh dama lay wax. la dama koy wax dama koy jox. yu baax ci TikTok laa lay. neexe salaan yoo xamante ni boo ko jëlee. booy yi dañ koy jël. gaar waale parce que booy nekk ci TikTok bi dañuy xëy suma ba ngoon di wut fu ñu gaar <laughs> xam nga xam nga gaarawaale TikTok dafa gën a tee yaatu. xam nga statut la ñu amoon léegi nag ñu am TikTok nag gën a yaatal gaarawaale gi. Mhm. donc léegi bii nga def nii. Mhm. boo ko jëlee def ko am na noo koy dugalee kii. mooy sama dernier sound. ah sama dernier sound. waaw mën na boo ko joxee yenn booy yi ñu def ko am na ñoo xam ne bu ñu ko gaarawaale. mu dox. parce que dafa am boo yoo xam ne dañ ciy toppandoo. mais wax dëgg dafa am masse la Tito Tito xam lu mu doon léegi. pour sans trace ba fooy son mbëggeel gaara foo gaara waale neexaloo tamit sa bébé. Mm-hmm. neexaloo neexoo. ki nga nekkal. ay doxante ah. Ah. <laughs> booy jàmm gën a nante nga. mais léegi sa quartier populaire nga dëkk jàmm gën. Mm-hmm. Euh, so si euh, te ñëw na fa imposer boppam ay mbiram eh, imposer boppam dem. <laughs> léegi yow sa musique. maanaam nit ki day am base quoi. Mhm. foofu est-ce que nan nga def waa jàmm gën yi. est-ce que ñu ngi lay taxaw. parce que maa ngi dégg nga leen di xëcc naan tarkindaa xamu turkindaa. ñun ñun ñun ñun tamit ay avant tout ay Baye Fall lañ. te gën mënoo faa jaay leneen lu Baye Fall mu saf leen. Hmm. ndax loolu moo fay tax ñun ay Baye Fall lañ te aussi tamit de passage maa ngi nuyu Siteu. sama frère la maa ngi koy bu baax waaw kooku nit gënu ko. Hmm. waa maa ngi koy nuyu bu baax xam nga euh, sama base jàmm gën la Kasor jàmm gën kasoor. mais da ngay amal ay spectacle ak yooyu. waaw bien sûr bien sûr actuellement ñu ngi koy préparé sax mais koor gi moo jël si après. koor gën fan ngeen defee ay spectacle jàmm gën. jàmm gën ko def mbatal. mbatal waaw. mbatal ah mbatal kañ jàmm gën fële la. caaroy géej day jéggi fële caaroy géej jàmm gën kay amul fu ñu war a defee fii. ah jàmm gën. mairie jàmm gën. waaw mairie jàmm gën moo nekk fan. ci jàmm gën kaw jàmm gën bi. saa gën nga foofu de. waaw foofu mu ne ko defee booru Fora. am na mm-hmm. noonu boo eh, mën a joué mooy fi tool yi nekkoon yow fi tool waaw plein air mu tax waaw xanaa du doon jamonoy nawet foofu mu ah, mais jamono nawet sax foofu léegi ndax ah, ah. la karo waaw loolu moom problème boobu. am loolu da koy kaas nag fii ngeen bu ciy wax. non yàgg nañ cee wax. ko hmm. waaw mais xam na am na wax yoo xam ne tamit. du faju waaw du faju da nga yàq. mais wax rek. suñ meew jàmm gën ma sax xamoo ah. mu tudd ah. te parce que man man jàmm gën parce que foo defee lépp waaye yàgg ma Kastoor laa nekkoon quoi hmm. Kastoor ak Touba laa nekkoon presque Kastoor ak Touba booy nag artiste day sob hmm. waroon nga xam meer ba dem seeti ko wax la hmm. li nga lan yor li nga lan yor may ñu leen ko pour yéen la mais gis nga budget pour nit la rek exact gisa gisa yuuxu boobu surtout surtout mu nekk porteur de voix da ko ñu koy yuux kenn faale ko. Hmm. keneen ak keneen yuux ko kenn faale ko te ñooñu gën a populaire. ah mais ngeen wax rek. waaw xam nga xam wax. Ah, wax boo xam ne wax rek. jàngoro moom. Hmm. yàq énergie la. aussi nga bàyyi ko tamit ñu xool keneen. nga wax ci sa musique. pour nga pour ñu adopté la yow da nga dëkk ci carte populaire boo xam ne bari ay jafe-jafe pour man hmm. sànq yaa ngi wax ci wóoyeeg lu ne nga dugg ci mais pour man pour nga jàll boo porté woon seen voix Siteu dafa ñëw rek porté leen di di wax pour ñoom di waxee comme ñoom ba ñëpp identifié wu ci moom. Mhm. est-ce que nekkul yow en tant que jeune rappeur boo ñëwoon ci côté boobu mooy gën a dox ka sax yi nga yaakaar ni dina dox. non xam na parce que gis nga boo boo gis nga lépp loo gis rek grand jaar fi fajuwut keneen jaar fi fajuwut yow boo boo fa duggee da nga sopp non non jaaral rek jaaral rek devoir la. ku ragal yow rek mën ku ragal quoi. non affaire yi du du xool doo xool li lay fekk ci jëf ji jëfal jëf ji rek dem sa yoon. Mhm. exact waaw mbir moo gis ci àdduna nit da ci am gàcce mais nit da ci am. mais est-ce que def nga benn son boo xamante ni day wax ci nekkinu du parce que yaa ngi foofu. jàmm gën gis ni nga xamante ni bi noonu la. banlieue bi demee ak tamit euh, insécurité affaire yu demee noonu est-ce que def nga ay son ci jëm. waaw bëri na aussi tamit sama projet bu may bu bu paree génne nii sax parce que projet bi dépp thème la quoi. ci côté dund bi ak côté tamit comme ñun banlieue bi du ñu jàkkonte foofu. ak yeneen ak yeneen quoi. parce mm-hmm. que ñu doon basé wu carrément si thème on thématique si thème la ñu jóg quoi presque. Mm-hmm. waaw def ay son mbëggee la nii ay solo ay son yoo xam ne ay éco trip le demee noonu mais doon basé wu carrément si thème. kon yow ay son mbëggeel moom kii woo ko waaw. même bii nga jaar. da nga ciy boole am naa fi ñaar am naa fi ñaar la parce que gars yi ñoo koy laaj quoi genre. aussi dafa toll si jamono bi loo xam ne tamit waaw mais c'est que tamit xam nga bon par exemple saa yi am na boo yoo xam ne mën nañ fi nekk di boulot affaire yooyu mais c'est bu fekkee ne dafa am ci genre kii yoo xamante ne bi ci ngay dund. Mhm. tamit est-ce que waxal leen jafe-jafe yi gënta takk mhm. euh, parce que tey jii comme Siteu mhm. mi nga xamante ne bi moom ngay wax ni Siteu li ko nit ñi xamee mooy jafe-jafe jàmm gën yi nga xam ni. moom lay jiital. moo tax waa jàmm gën dañuy retrouver wu ci moom. est yow tamit pour nga nekk un boo xamante ne bi waa jàmm gën dinañ gis sa seen bopp ci yow est-ce que doo développer yenn genre thème yoo xam ne day waxal dëkk bi. d'accord moo tax mu ne bu projet bu bu waay di nii projet bu ñu si loolu lañ gën a basé wu quoi. d' accord waaw si loolu lañ gën a basé wu. macha allah waaw kañ léegi euh, looy tàggatoo. waaw di santaat ñëpp tamit xam nga. Mhm. di nuyuwaat tamit xam nga ñëpp ñuy bàyyi xel. Mhm. di nuyuwaat tamit waa Diamaguène bu ma jógee du nuyu waa Touba. Mhm. du nuyu Paul Entre waa Ndiaye. du nuyu sama maam boo moo ma yar mère Cekka du nuyu Papa Khadim du nuyu ñëpp ñu bàyyi xel ak Fatou Waly maa ngi nuyu tey maman di nuyu tamit kon fi ànd mu Poupée Pésita artiste bu bu mag a ngi nag tamoon xam nga amoon nañu amoon nañu amoon nañu euh, mbégte mu ñëw toogoo ñu ci palaato bi. waaw ah, beneen yoon waaw ah, yoon moom waaye. waaw incha allah mais jar a bàyyi xel ngi ma bàyyi bu ñëwee ñu xool ndax jar naa bàyyi ku mën ku mën lu muy def nii. waaw bàyyi boobu ñëw rek waaw yaa ngi tagg di na. doo ñu sa bopp. te bañ fee nekk di ñu lijjanti naan ñu ak di ñu joxoon keneen. waaw waaw rapidement ma nuyu euh, ci suba saint dal di si waaw maa ngi koy nuyu tamit di nuyu waa gaale bi di hmm. nuyu tamit sama mag euh, alaaji Mor hmm. depuis Italie maa ngi koy nuyu kam maa ngi nuyu ñëpp tamit ñu ñu bàyyi xel surtout waa Touba tamit d'accord merci